ayca ñu ngi ayca ñu ngi taxaw ak ki nga xamante ni moom moo di euh, Sora Sora maa lay ziar. waaw doole ziar soxna si. ginnaaw bi lu waral teewaay bi tey ci bésu Ama Baldé bi. ah non Ama moom loolu moom deret la quoi sa famille quoi ñu ngi Ama démb la tey soog a ñëw. li muy def nii nag ñu ngay ñaan yàlla mu yokk di ko def chaque année chaque année chaque année waaw Ama moom nit ku baax la vraiment nit ku kase la. ni muy def nii yàlla na ko yàgg di ko gën mën mu koy def chaque année ati at nit ñi fii ñëw ñëpp xam nga nekkul n'importe qui xolam moo ko waral moo tax nit ñëpp di ko teewal fii nii quoi parce que dafa baax doomu aadama ah man moom leneen la ñuy dund quoi sama kër dafa jug chaque jour guddi bëccëg ñu ngi ànd xam nga ku baax la vraiment mun ma wax sax si moom. tey euh, ñu bëri ñëw teewal ko te dem nañ ci yeneen ndog yu nga xamante ni maanaam célébrité yi meluñu ci nii ama lan la leen ji waaw xam nga loolu lépp ci ci nit ki la xol la xam nga nit ki moom ba sa xol yaatoo rek ça veut mën nga ëmb ñëpp xolama yaatoo moo tax mu ëmb ñëpp nit ku baax la waaw loolu laa mën a wax ci moom. mbëru géejawaay ak mbëru Pikine tey jaxasoo bi nga xamante ni euh, ñu ngi koy nemmeeku ci seen biir ban jàngat nga ci. loolu moom affaire de làmb la te mbëri ñoom ñi ànd seen biir ñoom ñoo xamante seen biir ñii ñu ngi ànd tey bu subaa ñee tamit ñu ànd te ànd moom yàlla moo koy dogal rek nekkul de Pikine ak géejawaay passé la xam nga yëmbal caaroy jàmm gën nit ñi mu ko ànd ak xol ñooy ànd mais nekku gaar Pikine Guédiawaye mais xol daal ñooy ànd waaw loolu laa gis. duma taxaw ak Sora ba ba daaneel te duma ko laaj euh, ci ki nga xamante ni moom moo di Aziz Ndiaye euh, ginnaaw bi nga xamante ni sénégalais jox nañ ko bopp mais jamono mangu xam nga lii xol moo ko mën ginnaaw loolu euh, du ñu daanal te laajuñu la tey ki nga xamante ni moom moo di Aziz Ndiaye ndax euh, macha allah xaw nañ ko ah, gëj a gis ci réseaux sociaux yi mais jamono yi ñu weesu dañu gis benn xale bu jigéen bu ñuy wax aw Balde bu nga xam ne dafa yëkkati ay kàddu di ko laaj ay koppar yu nga xamante ni ci wàllu terrain la euh, est-ce que gisoon nga ni tey coow li waroon naa mën a jugaat ci jamono ji ginnaaw loolu yàgg ah non loolu moom vraiment par exemple du ma ci wax moom vie privée am la quoi loolu vie am la loolu moom dama ci wax lan mooy sa kàddu waaw di leen sant di leen gërëm yéen la Feeling Dakar wala Dakar live waaw nice seen liggéey rafet na ok merci beaucoup ciao

بحمد وشكر إلى ولي Boy, don't let put to the boy. Put that nobody don't even ask like. Put that nigga munai. Hey boy, boy, puzzle. Eh, get the lead. Puzzle, waaw. waaw. waaw. waaw. ndeysaan ndeysaan. voilà may defee sëb. sama pël. mais. ñàkk koo xam wóoru. parce que ñu dem ci léegi ko man nii laa mën a mel sama yaay njëkk a baax. ndeysaan. doomu as awa gisee. ndeysaan. dama xam teraanga nag. benn famille bi la de. benn famille bi la. mais ko man baax rek laa xam. teraanga yi nga xam ne ñëw nañu dina ko Ama Baldé mais bougé. bougé bougé. mais pigi temps bi na yaatu waale rek. mais bougé yéen ñëpp daal di ñëw. yaay mooy. Thank you.

wax dëgg yàlla moom bu mu dugg see Pikine ba léegi barke sëñ Touba si yoon la ñuy teg dëggal wóoral jubal xam na barke yàlla dañ koy ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm yàlla na ko suñu borom defal kilifa yàlla na ko suñu borom def kilifa yàlla na ko suñu borom may gudd fan mel gi wër gi yaram dañ koy ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm xeebuñu wóor na sëriñ Touba bu ko ne moom mooy doomu sëriñ Ateex bu ko ne moom mooy sëriñ Fallou xam na duñu kii waaye wal sëriñ Touba du toog journée te ñëw fi mhm. da nga koy ñaanal yàlla na ko suñu borom na waaw xam na bu ñu tey mënoon nañu xeeb daw ñu mhm. ñu sa ñu dem def fi lu ko lu ñu demee bay def dara si jëm bii la ñuy rus parce que bu dul dara dañ ko def àdduna dañuy gis ñun ñuy ànd mhm. kon war nañoo def loo xam ne tey bu ñu ko defee moom bu ko déggee da koy xeeb kon moo tax ñun duñ def dara loo xam ne da boo lëgee da koy xeeb dañ koy ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm amiin suñu xarit la suñu sëriñ la suñu lépp la dañ koy ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm suñu mbër a daan